de ça il faut parler de la migration régulière on n'en parle pas on ne parle que de migration irrégulière parce que c'est un droit hmm. les gens doivent se déplacer c'est un droit donc parlons plutôt de la migration régulière hmm. tant qu'on sera dans ce prisme de la migration voir les parce que c'est les aspects négatifs de la migration hmm. or la migration elle n'est pas mauvaise c'est plutôt un facteur de développement et d'intégration des communautés et des peuples mmh. mais pourvu que ñu garantir ko ouais. gouvernance bu baax ñu teg ko mm-hmm. loolu il faut que ñu def ko te à ce niveau là mm. je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être loolu aussi il faut que ñu pare que ñu fàttali ko mm-hmm. Sénégal amuloon li nga xam ne moom mooy politique migratoire 2020 ñu teg li nga xamante ne moom mooy SILEC mm-hmm. comité interministériel de lutte contre la migration clandestine bu ñu tegee SILEC SILEC bi moo am la terme bu ñu toogee ak les acteurs de la société dañu leen ne décret bi nga jël il faut ngeen changer le terme parce que clandestin c'est péjoratif am na connotation péjorative mm-hmm. il faut que ngeen changer ko mm-hmm. mais SILEC ko aujourd'hui ñu ngi changer l'intitulé du SILEC mu ngi tudd léegi SILMI comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière mm-hmm. donc ñu ngi def ay jéego bi ñu ko tegee ñu def ko sous la tutelle du ministre de l'intérieur mais ñu responsabilité li nga xamante moom mooy pour gérer ces mais lan la def dafa traversé benn document boo xamante ne moom mooy la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière mooy stratégie nationale ah de lutte contre la migration boobu dafa am cinq axes stratégiques yoo xamante ne adossé à huit piliers dans les cinq axes là il y a bien évidemment la prévention mais il y a également la gestion des frontières. ñu def ko si ñu war ko wéyal loolu on l'a validé le 27 juillet loolu moom c'est déjà validé politiquement c'est bon mais bu leelu weesoo xam mun munoo yem seulement de stratégie de lutte contre la, migration irrégulière validation de le 27 ah, juillet discours Amadou Ba moom la tiim voilà donc ñu validé bi ñu ko validé lan moo xew après le 23 août sur convocation de la primature on a révisé le document de politique nationale de la migration bi nga xamante ne dañ ko adopté en document bi nag nekkatul en phase. parce que dafa doon dure quatre ans. donc 2018 2022 le document était déjà tombé en obsolescence. Ouais. il fallait que ñu réviser ko et que la migration étant une question dynamique. Mm. les nouveaux enjeux. indiwaat ko ñu duggal ci ay input. Mm. ba 23 dernier bi ñu adopté ko. Okay. maintenant ñu ngi xaar la phase avec les élus et tout là pour que ñu adopté ko politiquement bu ñu ko adopté cest dire que xam nga ba fii amaguñu beneen document boo nga xamante ne moom mooy gérer li ñu nekk di wax ni yëpp mais ñu ngi ci processus bi mhm. mais parallèlement à il y a des initiatives d'emploi des choses comme ça mais loolu dafay ñëw complété mais seulement bu ñu amee document bi c'est à partir de ces outils là que le gouvernement pourra être en pleine mesure de pouvoir non seulement prévenir mais de rectifier également en fonction également boo xamante ne OIM moo ko génnee mooy li ñuy wax les IGM mhm. c'est c'est un outil d'aide à la prise de gestion mais également au management de la gouvernance euh, de, la gouvernance boo xamante ne six ponk la am trois principes ak trois objectifs day permettre état yi wala collectivités territoriales yi ñuy mun a gouverner wala prévenir li nga xam moom mooy la migration donc y a des choses qui sont en train c'est ce qui fait nag pour ce qui de la migration irrégulière fa lay jeexalee en fait du yomb parce que booy xool même état bi des mm-hmm. da ngay laqatu kenn mënu la dimbale en fait il faut que nga nekk en situation de détresse ou de difficulté nga yuuxu wàllu pour que ñu xam ne dem nga mhm. tant que defaloolu les gens ne peuvent pas savoir mhm. mais vu que booy dem doo taggu donc on peut pas également tout mettre sur le dos de l'État mhm. il faut que les parents également ils ont une rôle de responsabilité comme les médias également bi les médias c'était juste sur les on surfait sur tant de décès tant de décès mais depuis un certain moment regardez comment est-ce Mmh. On ne parlait plus de décès, mais on parlait de temps de bateau arrivé. Mmh. En fait, ils ont changé de fusil d'épaule. Oui. On parlait de temps de mort, temps de mort. Maintenant, on parle de temps de bateau Souvent, ce même pas des qui viennent Sénégal, c'est a de géopolitique et question de souveraineté. am na loo xamante ne boo waxee rek di nga mën a di gën a mën a lëndamal xel yi. Hmm. et que avec ce qu'on appelle le le web social. aujourd'hui chaque personne est vecteur de communication. Hmm. foo toll mën nga fa communiquer. nit ñi aussi bu ñu yeggee dañuy communiquer. donc loolu yëpp boo ko tegee ci table bi da xam ne ni du kenn kese les responsabilités sont partagées donc il faut que ñu toog ñu pencoo ñu xool mais également que les jeunes qu'on leur reconnaisse le droit de vouloir voyager s'ils veulent. et qu'on leur facilite les conditions de pouvoir. voyager les conditions de pouvoir voyager ça